أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu comme nuñ koy defee samedi bu nekk ñu del siwaat ak yéen ci suratul baqara ñu jëlaat tey insha allah ñetti aaya aaya 165 aya 166 aya 167 ñetti aaya yi nekk sunu kanam ginnaaw ba borom bi saxalee subhaanahu wa taala ci ñaari aaya yi paase ci ay ay ak ay tegtal yu leer yu wér ne am na ci nit ñi ñoo xam ne dañuy jaamu keneen ku dul yàlla te sunu borom subhaanahu wa taala kenn la moom mooy ki ñu war a jaamu ci dëgg jaamu gi nekk njëriñ ñàkk jaamu gi nekk lor moom sunu borom bu mu paree ci leeral aaya yooyu dafa jubluwaat ci beneen xeetu doomu aadama bu xeluwul bu amul xel amul xel la muy def xamu ci dara mu ne am na ci doomu aadama yi yoo xam ne dañoo jàpp leneen di ko jaamu def ko ay yàlla te loolu ay xërëm la donte ne bu dee ay nit bëgg nañ leen comme ni ñu bëggee yàlla subhaanahu wa taala ndax dañ leen di yemale ci bëgg bi ñu leen bëgg ak bëgg bi ñu bëgg yàlla subhaanahu wa taala te jullit dëgg danañ fekk danañ fekk allah subhanahu wa taala mbëggeelam waruta yem ak mbëggeelu bëgg doomu aadama aaya yooyu muy ñetti aaya liñ ciy jëlee min hidayatil ayat mooy wujubu xubbullahi bëgg yàlla dafa war ci jullit te bëgg yàlla kenn du ko tollale ak bëgg dara lu mu mën a doon nag ak ku mu mën a doon xatta bu dee ndey ak baay xatta bu dee yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam yàlla mbëggeelam kenn du ko tollale ak bëgg leneen yàlla supérieur ci lépp lu mu mën a doon ñaareel mooy mina shirki alxubbu ma allahi taala dafa bokk ci bokkaale ngay bëgg dara di ko dendaleeg yàlla di ko yemaleeg yàlla loolu bokkaale la yàlla kenn du ko dendaleeg lenn ak lu mën a doon nag ak ku mu mën a doon bu dee soxna bu dee doom bu dee baay bu dee ndey bu dee mbokk bu dee alal lu mu mën a doon kenn du ko dendaleeg bëgg yàlla subhanahu wa taala wa min al tawxid ahubbu alxubbu bi xubbillaahi azza wa jal bokk na ci nit lu ñuy xamee ne kii am na tawxid mooy ku bëgg yàlla mu bëgg ko ginnaaw moom ba mu bëggee yàlla tam subhanahu wa taala ba bare ñetteel bi mooy yowm alqiyamati tanxalu jamiu rawabit min alsadaqa wa nasab yowm alqiyam bépp relation bu amoon day dagg yowm alqiyamati bépp relation bu am day dagg benn relation dong mooy continuer di am mooy ñi bëggante woon ngir yàlla loolu ngeen dégg yàlla mu ne al axilla baaduhum li baadin aduwun illal muttaqin ñépp ñu bëgg bëggante woon te du yàlla day dagg kon léppay dagg yowmal qiyaamati lu dul mbëggeel bu jëm ci borom bi subhanahu wa taala moo xam askan la dara du des illa rabitatul iman wal uxwatu fiihi lu dul pas-pas boo xam ne ngëm yàlla moo ko laloon boobu rek mooy des ak ak mbokkoo bu ay nit mbokkoo woon ci yàlla tabaraka wa taala boobu rek mooy des ñeenteel bi mooy tabarru'u ru'usaa'u shirki wa dalalati wa du'aatu shar wal fasadi mimman ataa'uhum fi dunya wattaba'uhum fi ala zulmi wa sharri wal fasadi mu ne yowmal qiyam ñépp ñoo xam ne dañ leen a toppoon ci bokkaale dañoo dajale woon ay nit ci réer doon leen woo ci lu bon doon leen woo ci yàqute ñooñu seeni relation day dagg yowmal qiyamati gis ngeen parti politique yi yowmal qiyam bu jotee kenn ci ñoom du nangu nekk leader buñ la nee yow lañ toppoon nga ni man kenn topp ma woon bu ma la moom ak même bu fekkee sunu ca- caaxaan yi ñu nekk fii tey yowmal qiyaam da ngay gis kilifa gu taxaw ne man kenn topp ma woon waxuma woon kenn na ma topp moom lañu yàlla di nettali dafa am aaya yoo xam ne buñ koy jàng ci alquran soo dégluwul déglu pour jëriñ da nga naan kii dafa ñëw tey pour tooñ fekk dafa am aaya yoo xam ne texte la sans commentaire maanaam aaya yi soo koy jàng même boo ci yokkul sax sa wax yow da ngay xam ne lii dëgg dëgg dëgg yàlla rek moo ko ñemee wax kenn ñemee ko wax tey ku ko wax ñu dóor la ay kuur wala ñu dóor la ay marte wala ñu dóor la pistolet waaye nag yàlla moom moo ko ñemee wax te dara du xew te kenn du bo débordé kenn du daaneel asamaan si kenn du bënn suuf si aaya yooyu nag la ñu yàlla di di di jàngal tey mooy ñetti aaya yi nekk suratul baqara aaya yi ci Sénégal neexut a wax lu tax yàlla dane wa min annaasi man yattaxisu min duni illahi andaada andaadan yuhibbunahum ka hubbillah walladina aamanu ashaddu hubban lillah ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار yàlla mu ne wa min annaas am na ci nit ñi ñoo xam ne amuñu xel amuñu gis-gis amuñu dégg-dégg wa min annaas ina yimbe du doon ngeen koy wax de am na ci nit ñi du ñëpp nag waaye am na ci biir nit ñi ñoo xam ne man koo xam ne man ñoo xam ne yattaxisu dañuy jàpp dañuy jël min duunillaahi leneen lu dul yàlla andaadan def ko ay ndend di ko dendaleeg yàlla jël nit di ko dendaleeg yàlla loolu am na tey wala am gis ngeen ko ak seen bët am na ñoo xam ne boo leen nee yàlla nee na du ñu yëngatu mais boo nee diw nee na rek ñu mbëkk miir yi waaye fii ba suba boo doon jàng alxuraan fatiha ba naasi 114 saar yi nii rek la ñuy def di la xool dara du xew waaye cey boo nee cey diw barke diw est-ce que diw ñu ne commencé yuux di dof dof loolu am na wala amul teg ngeen ci bët wala tegu leen ci bët wax leen bu leen noppi yàlla moo ko wax lii waxu yàlla la waxu yàlla bu leen ci déngi déngi wax leen ko bu leen ko ragal alxaqu min rabbik yàlla mu ne wa min annaas am na ci nit ñi man koo xam ne yattaxis dafa jàpp min duunillaahi leneen lu dul yàlla andaadan daf ko ndend te jàngoon ngeen ci alquran yàlla mu ne fala tajcalu lillaahi andaadan wa antum taalamuun bu leen jël leneen di ko dendal ak yàlla te yéen xam ngeen kii ngeen di dendal ak yàlla du yàlla wa antum taalamuun wala loolu du wax loolu du waxu yàlla jàngoon ngeen yonent biñ ko laajee ayu zanbin azam ban bàkkaar moo gën a rëy lan la wax an tajala lillahi niddan wa huwa xalaqak an tajala lillahi niddan wa huwa xalaq nga jël keneen di ko dendale ak yàlla te xam nga ne yàlla la bind yow ngay dendale keneen ak yàlla tey daanaka Sénégal loolu moo ko yàq jël ay nit di leen dendale ak yàlla bal sax yenn saa yi ñu jox la kattan ak doole joo xam ne sax dañ naan yàlla amu ko waxuma sax yonent bi waxuma sax yonent bi kenn waru ko dendale ak nit mais dépassé nañ léegi yonente bi ay yenn saa yi nga dégg ñu ne kii du nit kii du nit kii moo raw ñëpp yonente bi ci la bokk xanaa xas dañoo waroon wax dañoo waroon wax bokk moo raw nit yi jamonoom bokk waaye moo raw ñëpp xanaa yonente bi ci la bokk Aboubacar Saddiq ci la bokk allahu akbar Omar ci la bokk Ousmane ci la bokk sénégalais mun na raw Aboubacar Saddiq Sénégal ku juddoo Sénégal dëkk Sénégal mun nga raw Aboubacarun Saddiq yéen am ngeen ci Sénégal ku tolloog Aboubacar waxuma yonent bi de yonent bi ne wallahi wallahi ma wataatil ardu baada al anbiya min abi bakr yonent bi dafa giñ ne kaw suuf ginnaaw yonent bi moom ginnaaw yonent yi ku mel ne Aboubacar doxul ci kaw suuf ma wataatil ardu baada al anbiya ñoom nuux ak ibrahima ba ñu passé yonent bi ne kaw suuf keneen doxu fi ku mel ne aboubacar sénégal nag ñu ne ndeysaan ah am na ku gën aboubacar la ilaha illallah mooy suñu problème il faut ñu delloo si waat tawxid bu ñu bëggee jaamu yàlla ñu bàyyi farfarloo dañuy indi waat tawxid tawxid te mooy wéetal yàlla yàlla mu ne dañu jël dendale ak yàlla ay nit andaadan ay ndend jam u nit wa huwa al masal mooy misaal wan nazir ak ay ñu ñuy nattatle nattatle ak di ko méngale wal muraadu bil andaadi huna ashuraka nee na aaya bi liñ ci jublu fii li ci yàlla bëgg a wax mooy lan dendale yàlla ak leneen yaabudunaha ñuy jaamu loolu bi hubbiha ci bëgg biñ ko bëgg wa taqarrubi ilayha ak jege giñ koy jege ñu koy def ngir yàlla dañ koy jaamu xoolal tey misaal rek laay joxe am ñoo xam ne bu ñu génnee ah toog képp ku ñëw du leen di nuyu da ngay raam gis ngeen ko wala gisu leen ko soo ñëwee ba jege ko da ngay simmi mbax ne mi bokk alays kazalik da ngay dugg tribunal ñu ne fii la mbax ne nekkee kenn moo fi sol mbax ne mooy procureur général mooy sol mbax ne ah ñëpp simbi seen mbax ne nga dugg néegu yàlla ñu ngi nii ñun ñëpp sol sunu mbax ne ci néegu yàlla la loolu bokkaale la dem tribunal simbi sa mbax ne dugg ci sa néegu sëriñ simbi sa mbax ne bokkaale la parce que da nga koo suufee suufelul nga dugg néegu yàlla ak sa mbax ne ci kaw kon ku gën a màgg kon ñaari néeg yi bu gën a màgg gis ngeen bokkaale lu sew la moo tax yonent bi ne ashirku axfa min debi bi nam la bokkaale dafa sew comme tànki xorondom ni mu sewee xam ngeen xorondom mooy mbelentaan mu ñuul moomu yonent bi ne fii zulumati sawda ala xajarati sawda fii zulumati leyl mbelentaan bu ñuul di dox ci xeer wu ñuul ci 3 heures du matin ñu ne la xoolal tampon tànk yi ndax di nga ko gis noonu la bokkaale sawee dafa am yoo xam ne bokkaale la bëgg nit ba soo ko gisee di jooy su waxee nga jooy waxuma sax bëgg ay kilifa diine mais woykat yi rek woykat yi rek ay ñoom ay ñoom ay ñoom nga gis bu ñu commencé rek soo bi commencé ñu jël micro bi rek daan ne so gaa yi xëm nga gis am ñu xëm xëm dir daan daan daani su xëm xëm ñooñu wayaguñ de dañu ne soo rek ñu xëm allahu akbar xoolam mbëggeel googu te yow buñ la nee yàlla nee na nga ni këj toog buñ la gënoon jàngal aaya yi gën a ñàng ci alquran day mel ne yow dara xewut nga toog di xool nii ba au contraire sax yenn saa yi nga gis ndeysaan moo tax sunu borom moo wax dëgg mu ne wa ida zukira allahu wahdahu iz maazzat qulubu allazina laa yuminuna bil axira wa ida zukira min dunihi ida hum yastabsirun allahu akbar mu ne bu ñu waxee yàlla kese nga gis iz maazzat day lemu wow comme qulubu allazina laa yuminuna bil axira xoolu ñi nga xam ne gëmuñu alaxira waaye wa ida zukira min dunihi bu ñu waxee keneen ku dul yàlla nga gis isahum yastabsiruna ñëpp kontaan skay skay yëkkatal loxo yi ñëpp kontaan bu ñu waxee yàlla kese kenn du wax bu ñu waxee keneen ñëpp kontaan loolu est-ce que iman la loolu est-ce que l'islam la moo tax ma wax leen sànq ne aaya yii soo ko fi wax waaye nit ñi dañ naan kii de diw lay wax fi mu nekk ni ñu bëri seen ñi toog ñu ngi naan waaw ñoo ñoom diw nii lañ mel parce que alxuraan la ala yaalamu man xalaq wa huwa latiful xabir yàlla moo bind moo tax moom moo ñu xam moo tax bi mu ñu bindee mu xam ñu mu wax aaya yi aaya yi ñëw nekk correspondre ak yàlla li muy wax subhanahu wa taala mu ne yaabuduunaha dañ koy jaamu bi hubbiha ci mbëggeel gi wa taqarrubi ilayha ak jege giñ koy jege bi anwaa'il ibaadaat ci ay mbir yoo xam ne yàlla moo ko moom ñu jël di ko defal kooku lu yàlla moom saa yoo ko defalee nit mooy toroxlu toroxlu yàlla moo ko moom moo tax kuy julli day toroxlu kuy julli nooy def da ngay rukkoo sujjóot wala sa jë ngay teg ci suuf sa ñaari loxo sa ñaari bëti óom sa ñaari cati baaraami tànk yëpp nga teg ko rëppeel daal di juutu ci sa kanamu boroom loolu yàllaa ko moom léegi boo ko defalee nit nag di raam raam raam dafa araam ñu koy defal nit dafa araam kenn du ko defal nit ah lemu ñëw ba ci nit ne kurit nga xam ne doo ñemee sax sigg sigg siggi doo ñemee wax ci kaw loolu dafa araam loolu yàlla moo ko moom loolu mooy toroxlu ku ko defal nit bokkaale nga yàlla dendale nga yàlla ak mbindeef ixwatal iman lu mel ne ñaan wa nësër wal xalaf ak waat yëpp yàlla moo ko moom doomu aadama moomu ko moo tax yàlla mu ne yuhibbunahum dañ leen a bëgg ka hubbillah comme ni ñu bëggee yàlla allahu akbar bëgg nit comme ni nga bëggee yàlla loolu gis ngeen ko ñaari mbëggeel ñoo am benn bi yàlla rek moo ko moom benn bi nag ñëpp a ko bokk mooy bi ngay bëgg sa nitu moroom bëgg sa soxna bëgg say doom ah zuyina linnaasi hubbu shahawaat min annisa walbanin walqanatir almuqantara min alzahabi walfidda was xayli almusawamati wal an'am yàlla yàlla jeexale mu ne zalika mataaul xayaatu dunia wallahu indahu husnul maab gis ngeen kon mbëggeel gu njëkk gi mooy yàlla subhanahu gis ngeen ibrahim ibrahima xam ngeen ñu baree bari dañuy wax histoire tabaski mais xamuñu lan mooy cosaanam yu bari ci ñun dañuy jàng tabaski fi mu nekk nii kër goo bari na boo duggoon cib kër nga ni borom kër gi tabaski nga tabaski bi passé mu ne la waaw nga ne ko lu tax nga tabaski mu ne la yàlla moo ko santaane ah waaw lu tax lan mooy hikma bi lan moo xewoon ba yàlla mu ne Ibrahima reyal sa doom Ibrahima dafa nekk ci àll bi mu gis benn picc buy lekkal doomam picc xam ngeen picc buy lekkal doomam nu muy def day sex beg bi begu doom ji lay sex moom ci boppam day jël gémmiñam sex gémmiñu doomam di génne lekk bi ci putam di ko solal doom ji Ibrahima bi mu xoolee loolu yërmandeem dem ci Ismaïl ndeysaan mu xalaat doom ji mbëggeel gu rëy génn ci xol bi dem ci Ismaïl yàlla mu ne ko Ibrahima reyal Ismaïl yàlla mu ngi koy testé pour xool li mu bëggoon yàlla wàññeeku na wala wàññeekuwul moo tax yàlla mu ne wa isibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atamahunna fàttaliku leen ba yàlla nattoo ibrahima ci ay baat ba ibrahima réussiré baat yi yàlla mu ne ko inni jaayiluka linnaasi imaaman tey ma def la njiit nag comme yow yaa raw ñëpp moo tax yàlla mu ne inna ibrahima kaana umma ibrahima rek imaam la nation la ci tawxid amul ku mu tolloo moo tax ñu tuddee ko imaamul muwahidin yowmal qiyaam bu ñëpp dekkee drapeau tawxid bi ibrahima moo koy yore ndax amul ku mu tollool tawxid gis ngeen loolu nag moo tax yàlla mu ne ñu roy leen ibrahima laqad kaana lakum fii ibrahima wallazina amanu maahu yàlla mu ne roy leen ibrahim roy leen hatta yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam yàlla mu ne ko royal ibrahim yem loo ko sax ci kooku waaye yonent yëpp ulaika allazina hada allah fa bi hudahum iqtadi ñee laa jubal yow muhammad boo buggee baax royal ñooñu mooy yonent yi alayhim salaam kon ñun bu ñu bëggee baax waa Sénégal ka la ñu toppandoo yonent yi ndax ñooñu la yàlla wax ne ñoom ñoo baax ñun suñu bëggee baax fa yoon boobu rek la ñuy jaar waaye bu ñu jaaree yeneen yoon dañuy bokkaale rek ba xëy dugg safara gis ngeen semaine bi passé lan ngeen gis Sénégal ku yeewu jël juróom-ñaari paanu ndox sotti sa buntu kër wala yéen amul seen koñ kan la amul koñam fii ne yëkkati loxoom ci biir jumaa ji amul seen koñ fan la fan mooy seen koñ côté marché bu bees ak kan la ilaha illallah Sénégal tout la am koñ boo dugg rek am na fa kër gu ñu sotti paan ndox ci buntu kër gi juróom-ñaari paan juróom-ñaar laa wax de te tey boo dëkkoon ak nit mu ne la may ma ñetti paanu ndox nga ne ko loolu dafa bëri waaw may la benn paan rek dafa bëri c'est trop juróom-ñaar set non facture bi dafa cher nga jël juróom-ñaari paan saraxe woo ko maye woo ko nga sotti ko ci suuf lan nga ci yaakaar jàmm sedd waa Bagdad lu leen toxal waa waa waa waa Gunaas lu leen toxal waa ñetti mbaaru lu leen toxal lan moo tax ñu tabax plan jaxaay ndeke ndox amul jàmm lan la yàlla reye woon Firawna ndox yàlla mu ne wa nabaznaahu fil yammi wa huwa mulim fil yammi wa huwa mulim ndeysaan yàlla ne maa jàpp Firawna labal ko ci géej ma nëq ko ma nëq ko ba muy gis ay étincelle lu bëccëg allahu akbar bëccëg muy gis ay étincelle moo ko nëq waaw ba mu faar yàlla mu ne ko tey ma walla doo yàlla dinaa la génne ci biir ndox mi ba àdduna bi yëpp dinañ la tiim xam ne yow doo yàlla ndax yàlla du dee kon ndox du maye jàmm yàlla mooy borom jàmm soo bëggee jàmm da ngay yëkkati yàlla say loxo nga ne ko allahumma anta salaam wa minka salaam wa tabarakta ya zal jalali wal ikram yàlla may la jàmm waaye nga dem ci ndox ndox mbindeef la comme yow maxluuq est-ce que xam ngeen ndox mbindeef la mbindeef la comme yéen kan moo bind ndox ku la bind yaa ndox yéen a bokk benn borom nga bàyyi ndox yàlla di jaamu ndox sunu borom subhanahu wa taala mu ne am na ci nit ñi ñoo xam ne dañoo jël leneen dendale koog yàlla bëgg loolu yuhibbunahum ka hubbillah bëgg leen comme ni ñu bëggee yàlla allahu akbar waaye mu ne wallazina amanu ñi gëm yàlla wallazina amanu allahuma ij'alna minhum lii bokk lii nag fii mooy problème bi wallazina amanu hal nahnu min allazina amanu est-ce que ñun ci ñi amanu lañ bokk nan lañ ko yàlla nangul mu ne ñii wallazina amanu ñii ashaddu hubban lillah ñii ñoo gën a tar mbëggeel bu ñu bëgg yàlla ñii lépp yàlla moo leen ko gënal yàlla moo leen gënal seeni baay yàlla moo leen gënal seeni yaay yàlla moo leen gënal seeni doom yàlla moo leen gënal seeni alal yàlla moo leen gënal lépp lu ñu am lu dul yàlla bëgguñu ko yàlla rek moo nekk ci kaw bu yàlla soxlaa keneen soxla toolu yàlla la ñuy xëy lu tax ashaddu hubban lillah loolu moo tax da ngeen di jàng histoire nit ñu baax ñi ñoom yàlla rek balaa keneen yàlla rek balaa keneen yàlla subhanahu wa taala ku woote su yàlla woote ñu bàyyi ki woote dem wuy ji yàlla bàyyi boo ko tegaloon palaat palaatu ginaar mu yëkkati dem bay seex mu dégg ñu ne assalaa hayya ala salaa day teg dem wuy ji ndeysaan parce que yàlla moo woote jàngeen histoire u sahabatul kiram benn histoire benn sahabu tudd Hanzala lan ngeen jàng ci histoire u Hanzala dafa amoon siit siit jabar ju bees tàq mu fanaanoog moom fajar mu dégg ñu naan hayya alal jihaad mu daal di jéggi siit bi mu dem xeex ñu rey ko lan la bàyyi séet séet séet séet fii fii fii est-ce que nit dafi takk jabar da takkee jabar sax souvent nga biddanti salaatu doo dem julli ji fajar da mooy seetu quoi mooy seetu waxuma laa nag xëyya alal jihaad moo tax Hanzala mu bàyyi jabar ji mu dem wuyu ji yàlla ñu rey ko ñu gis malaaka yi jóge asamaan yor ndox jóge firdaws di ko sang te ku dee ci jihaad kenn du ko sang sahaaba yi dañoo tiit ne yonent bi yaa ñu jàngaloon ne ku dee ci jihaad kenn du ko sang kii lu tax ñu koy sang mu ne dafa amoon sobe li muy ñëw di jóge ci jabaram dafa amoon sobe te dafa war a dugg aljanna kenn du fa dugg ak sobe daf kooku day wane dafa bëgg yàlla yaa ngeen histoire sahaaba bi ñu reyoon ndeysaan doom ji ñëw ci yonent bi ne ko ñii nee nañ sam papa dafa xaru ndax dafa gis ay junney junney yéeféer xam na ne ñii ñëpp mënu leen a jeexal mu attaqué leen mu rey rey rey ñu rey ko saaba yi ne kii dafa xaru ndax xamoon na ne bi muy dem du delsi waa ji doom ji dégg loolu ñëw ci yonent bi ne ko gars yi nee nañ sama papa dafa xaru yonent bi ne ko wallahi yàlla musta wax ak nit lu dul min wara il hijab lu dul sa baay
Allah
yàlla musta wax ak nit lu dul suy wax ak yow day am lu nekk lu nekk sa diggante ak moom comme yonent bi bi yàlla di wax ak moom lu nekk digganteem ak moom jibril hijab même Moussa yàlla bi muy wax ak moom da ko feeñu ci garab amma sa baay yàlla dafa jàkkaarloog moom face à face yàlla ne ko loo bëgg waxal loo bëgg ma defal la ko mu ne nga delloo ma sama ru ma delluwaat àdduna xeexaat pour ñu rey ma Allah
te ñun ñun waxuma la ku yàlla ne jàkkaarloo woon mais yonent jàkkaarloo yow ne la waxal loo bëgg waxuma yàlla nag subhanahu wa taala ne la waxal loo bëgg bu doon ñun fii kenn looy bëgg wax da nga naan dëkk almadi am 4-4 am double jeeg parce que ñun loolu ñu tere nelaw xoola saxaaba bi lan la wax waxul dugg aljanna de dafa ne yàlla nga delloo ma sama ruu ma delluwaat ci jihaad bi ma xeexaat ngir ñu rey ma loolu dong laa bëgg yàlla ne ko waxoon naa àdduna ku fa génn doo fa delluwaat mu ne man nag loolu dong laa bëgg delluwaat àdduna rek xeexaat pour ñu rey ma waaw akbar ñooñu niroowuñoo ñun ñooñu dañoo bëgg yàlla yaa ngeen histoire soxoy bi ruum yi wa min annaas man yastari nafsahu ibtiga mardatillah jaay sa bopp ngir yàlla jaay sa bopp ngir yàlla kon ñii dañoo bëgg yàlla wallazina amanu ashaddu hubban lillah dañoo bëgg yàlla ba desalatuñu rabia da doon wax yàlla laytaka tarda wal anaamu xidaabu yàlla soo soo kontaanee ku mer affaire am la waaw yàlla yow na almuhim yow na nga kontaan rek mbëggeelu yàlla kenn du ko dendaleeg lenn moo tax wallazina amanu ashaddu hubban illa borom bi mu ne walaw yara cay su gisoon allazina ñi nga xam ne zalamu dañoo tooñ allahu akbar wallazina ñi nga xam ne zalamu ay tooñkat lañ cay suñu gisoon is yaraw na la azaba jamono ji ñuy gis mbugal ñi mbugal ma kon dana yëg ne anna allah anna al quwwata naka kattan lillahi ñeel na yàlla jamian mbooleem kattan bu nit ñi deewee ba dekki borom bi mu ne law yaral mushrikuuna ñii bokkaale yàlla bu ñu gisoon inda muaayanatihimul azab jamono ji leen yàlla jàkkaarlooweeg jahannama yowmal qiyaamati lara aw amran fazian kon danañ gis mbir mu ñaaw yaajizul wasf anhu wallahi nit dina tële melal mbugal moomu naka la ko doomu aadama di gisee yàlla ne nag su doomu aadama yi gisoon mbugal yowmal qiyaam kon danañ xam ne yàlla rek moo am kàttan pourtant doomu aadama yi war nañ xam loolu war nañ ko gis fii ci àdduna balaa yowmal qiyaamati bu ñu la ne ku defar asamaan looy wax ah bu ñu la ne ku defar suuf looy wax bu ñu la ne ku defar géej gi looy wax bu ñu la ne ku defar jant bi looy wax bu ñu la waxee ku defar weer bi looy wax loolu ki ko defar ku am doole la wala amul doole ku am doole la loolu moo tax yàlla subhanahu wa taala mooy borom kattan moo tax bu la nee yowmal qiyaam dinaa leen woon mbugal moo xam ne ku ko gis di nga xam ne man yàlla maay borom kattan doomu aadama yi war koo gëm walaw yara walaw yara allazina zalamu is yarawna al azaba anna al quwata lillahi jamia yaa rek moom kattan doomu aadama léeg-léeg nga dégg léeg-léeg nga romb benn dëj ñu rangale mbana yi def ko 20 mbana wala gis ngeen ko mus ngeen ko gis wala mus ngeen ko gis léeg-léeg nga romb benn mbedd ñu def mbi- ci ni dëj bi dëj bi ñu def ko 40 rey ñetti nag ah ñu def ko 100 baas gis ngeen ko la gisu leen ko nga ni ah waaw ku dee fii ñu ne yii ki fii borom doole moo fi dee kii di borom doole la ki amul doole ki ko tëral kay moo ko ëpp doole moo ki ko jàpp tëral ko ba bi ñu koy yóbbu dañ koo fab yëkkati ko ñoom ñaar ko ëpp doole Hmm? kon kay wa anna al quwata lillahi xool leen américains yi lan lañ ñu waxoon ñoo fi ëpp doole ñoom ñooy gendarme de monde loolu la ñu waxoon keroog ba leen di dóor 11 septembre kon kay xam nañ ne anna al quwata lillahi jamian doole yàlla rek moo ko mën moo ko am koo fi dégg koo fi dégg muy woote wala muy wax naan moom am na doole seetaan ko rek dafa am benn mbër bu musa ñëw ci benn sëriñ mu ne sëriñ damaa bëgg nga ñaanal ma mu ne loo bëgg mu ne ma am doole ku ma jàpp rek tëral ko ci suuf sëriñ bi daal di ubbi fenêtre yi ne ko yërnul mu yërnu gis armeel yi mu ne ko yaa ngi mbër mi tëral ñii nag waaw kii di moom moom ëpp doole mu ne ko kon nag jeex na doomu aadama boo fi yàggee nga xam ne amoo doole yàlla rek moo am doole kattan yàlla moo ko am kon amoo doole benn waay waxoon na ne moo fi ëpp doole mu dajeeg benn borom xam-xam borom xam-xam mi ne ko fooqa kullu qudratin qudrallah na nga yëg ne képp ko am kattan yàlla moo la ëpp kattan kon nit ñi dafa war a leer ci seen bopp ne anna al quwata lillahi jamia wa anna allaha naka yàlla shadidul azab yàlla ku tar mbugal la mbugal yàlla xëjul ci doomu aadama xam ngeen loolu wala xamu leen ko yàlla mbugalam xëjul ci nit bu seddee fi mu nekk nii bu ëpp rek luy xew nga gis am ñu dee bu tàngee ba ëpp am ñu dee su ngelawee ba ëpp am ñu dee su ngelawul am ñu dee su tawee ba ëpp am ñu dee bu tawul am ñu dee kon kay yenn saa yi da ngay toog sa nga xalaat yàlla lan lay doyee safara mu koy doyee waaw loolu loolu paabaanaan allah so hulaaka jola ñun ñoo fi tukulóor allah soo hulaaka o jola dégg ngeen la wax jooju yàlla buñ ko ragalul da koo neex rek gis nga banu israil bi leen yàlla ne def leen lii def leen ñu bañ ah yàlla ne leen def leen ñu bañ yàlla ne leen xuzu ma ataynaakum bi quwwa jël leen lii ñu lànk yàlla ne na ma dijj montagne bi tiimale leen ko wa rafaana fawqahumu tuura ma yëkkati montagne bi ba mu tiim leen man leen acca xuzuma ataynaakum bi quwwa ñoom ñu daal di koy jël gis nga de acca yàlla acca rek ñu daal di dem jël xuzuma ataynaakum jël leen li ma leen indil te kat bi quwwa bu ko kenn sax bi ak doole allah soo hulaaka o jola yàlla buñ ko ragalul da koo neex fii nii balaa ñuy julli liggéey bu neexoon yàlla léegi ñu ragal ko waaye yàlla comme daf ñu bàyyi ak suñu xel du ñu forcé ku nekk yàlla daf la bàyyi ak sa xel loolu moo tax waa safara bu ñuy dugg safara seen xel la ñuy wax law kunna nasma aw naaqil ma kunna fi ashaabi sair yàlla may na la xel du la forcé soo utiliser sa xel rek war nga xam ne dañu war a jaamu yàlla wala dañ ko mu tëdd dañu war a jaamu yàlla wala waruñoo jaamu yàlla mbokk yi wa anna allaha naka yàlla sadiidu ku tar la al azabi mbugal mbugalu yàlla xejul ci doomu aadama borom bi mu ne is fàttalikul tabarraa waxtu way dañ di summeeku allazina ñi nga xam ne uttubiu ñoom la ñu toppoon dafa am bis mu ngi ñëw sunu kanam képp ku ñu toppoon di nga summi mbub mi ne toppuñ la woon is fàttalikul tabarraa waxtu way summeeku di deñ di weddi allazina ismu mawsul la loolu moo tax yàlla ay nit lay wax waxul xërëm ismu mawsul lil aqil doon ngeen jàng ci naxaw ah uttu bi uu dañ leen toppoon ci ñan la ñuy dañ min allazina ci ñi nga xam ne ittaba'u ñoom ñoo toppe woon ñi ñu toppoon ñoo taxaw naan hee ñun kenn toppuñu ñu naan ah kay yoo xamee woo ma man yoo xaw ma la de yaay kan mu ne man mu ne waaw yow yow yow ah mu ne yàlla ki xaw ma ko de xaw ma ko gis ngeen yowmal xiyaam noonu la lan moo ko waral yàlla mu ne warawul azaba dañoo gis mbugal mi moo tax dañoo ubbi jahannama ne mi ngi nii tey ku toppuloon yàlla fi nga jëm gaa yi doo toppuloon yàlla ñu ne yàlla ñun ñii ñoo taxoon toppuñu yàlla ñii la ñu ngi nii inna ataana saadatana wa kubraana fa adalluna sabil ñun sunu mag ñi ak sunu kilifa yi ñoom la ñoo lañ toppoon ñoom nag ñoo ñu réeral mag yooyu nag ne ñun ñun xamuñu leen di yow yaay kan yow man ak yow bokk ñoon jamono man xawma la woon hmm. ndeysaan gis ngeen de képp koo fi topp te toppoo ko ci yàlla toppoo ko ci yonent yowmal qiyaam day denc yow di la weddi toppoo ko woon yàlla moo ñu ko nettali mi ngi nii di lan moo tax tey ñu ñëw ba fii ñu ne topp ñu leen doon waraul azab dañoo gis mbugal mi ñaareel bi mooy wataqattaat bihimul asbab sabab yi ñoo dagg li leen li leen jokkale woon chaîne yi leen tënkoon mooy indi leen rek na duun jox leen ñu rek incha allah ñun ñu lañ leen yóbbu aljanna benn sëriñ mus na wax ne su ngeen gisee nit ñi di ñëw fii di ñu wax problème mu àdduna alaxira dañ koo réglé ba pare moo tax ñoom amuñu problème alaxira problème àdduna la ñu am moo tax àdduna bi rek la ñuy réglé day ngeen wax bi dañ ko laaj na ko yéen lu tax nit ñi buñ ñëwee fi duñu wax waxu alaxira ñu ne alaxira réglé nañ ko réglé nañ ko foofu incha allah diw mu ngi foofu ku dee rek bu ñu gasee pax bi rek ñu ne diw mu naa ñu ne jo- jox nañ la kii jox ko yonent bi mu jox ko yàlla mu dugal ko aljan terminé yenn saa yi sax yenn saa yi ba bàmmeel dañ ciy def laisser passer dañ la koy suulaale ñu ne laisser passer la waaw ay dem aljanna direct wa taqattaat bihimul asbaab lii li leen allié woon li leen jokkale woon relation yi moom moo dagg amatul indi ceeb amatul indi diwlin amatul indi million amatul oto amatul mbasin amatul tabax kër jox la caabi ji amatul amatul waraul azab tey moom mbugal maa ngi nii ku jaamu woon yàlla safara nga jëm sabab bi moo dagg foofu ñépp a yem boo tourné gis sëriñ bi def yaramu neen comme yow solul sax silib yàlla moo ko wax de bu leen yaakaar ne dama ñàkk teggin yàlla moo ko wax yonent bi nee na xufaat oraat tegay leen ko xuralaa xufaat mooy lan duñu sol daal xuraat duñu def sol yére xuralaa jong wuñu waxuma ko de yonent moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam nee na yowmal qiyaam ñett yi bu ñu dekkee kenn du sol yére kenn du sol dàll li ñu daggoon ci yow sax ba ngay jong day ñëwaat boo tourné na nga gis sa kilifa nii nii taxaw mel noonu nga mel noonu ci wetam nga gestu xool ko mu xool la nga ne ko yow mi laa toppoon mu ne la xaw ma la yàlla moo ko wax li kulli imri'in minhum yawma idin sha'nun ay gars yi man waxuma ko de billahi wallahi wa taala yàlla moo ko wax ak yonent bi yowma yafiru lmaru min axihi wa ummihi wa abihi wa saahibatihi wa bani ñu ne yàlla lu tax mu ne li kulli mri'in minhum yowma idin sha'nun ku nekk da nga am lu la doy olof yi nee nañ sikkim yi bu ñuy lakkandoo ku nekk sa bos ngay dala fay wala kon lii moo tax relation yi moo dagg waraul adab wa taqattaat bihimul asbaab relation yi dagg nañ coupé na ki nga àndaloon waxu la jaamul yàlla ki nga àndaloon wanu la yonent bi wala ay caaxaan bàyyi loola julli bàyyi loola woor bàyyi loola aji màkka nga nekk ci loola neex di caaxaan doo julli doo jaamu yàlla ut ay jabar yu ëpp ñeent di naan di fecc nekk ci caaxaan léegi nag ba dee ñëw na nag dem nga àllaaxira fekk nga luwaa àllaaxira ak luwaa àdduna du benn àllaaxira ku jaamu yàlla safara nga jëm nga dem fekk ki nga yaakaaroon mu ngi ne la ñu ñu yeew mu ngi ne la ñu yeew xam nga boo ñëwee ci kër moom nga fekk ñuy pes sa pap pes ko gauche pes droite nga xool ko mu xool la boo dogal xam ne fii moom sa pap mënul fi dara tey nga dugg ci commissariat bi nga gis ñu ne ko assis mu toog dëbu mu jóg simmi sa mbax ne mu simmi tekki sa karawaat mu tekki simmi sa dàll mu s- dindi centre bi mu dindi bu la nee demal ma ñëw yekkal leen ma reer da lay nax wala loolu mooy loolu mooy li lañ yàlla di wan yowmal qiyaamati yàlla daf ñu wan ne yowmal qiyaam xattaa yonent yàlla muhammad munu fa dara kenn munul dara yowmal qiyaamati moo tax yonent bi teel a wax Fatima yaa Fatimatu bintu Muhammadin salini min maali ma shiti fa inni laa ugni anki min allahi shay Fatima mu ne ah mu ne sama alal de laaj ma ma jox la waaye ëllëg boo jaamul yàlla mënalu ma la dara yéen jàngeen histoire Nuux Nuux yonent la wala du yonent ulul azmi min ar-rusul cheikhul mursalin ah ba mu ne yàlla inna ibni min ahli lan la ko yàlla wax innahu laysa min ahli nuux mu ne mu ne ko gis du sa doom te nuux attention de wala tuxaatibni fi lazina zalamu ah innahum la mugraqun ñu tooñ ñi bul waxatee ak man ak seen problème ah man it dañuy lab nuux fu mu mujje yàlla baal ma dootuma ko defati nuux lañ wax de waxuma laa keneen nag ku jaamu yàlla jabaru nu wa daraba allahu masalan lilazina kafaru imraata luutin ay yonent lañ seen jabar yaa ngi safara kon ku jaamuwul yàlla perte nga kuñ fi topp wanoo nit ñi yàlla wanoo nit ñi yonent jàngaloo woon nit ñi alquran yowmal qiyam yaa ngi nit ñi di ngeen am problème yàlla mu ne waraul azab gis nañ mbugal mi wa taqatta at dagg na bihim ci ñoom al asbaabu sabab yi wa qaala daat nay wax nag allazina ñi nga xam ne ittaba'u ñoo toppoon ah da ngeen defe ne Sénégal ñi ñu ciy topp lan moo tax ñu leen di topp àjjana rek ba pare ñi ñuy topp ñoom it dañu ne mën nañ yóbbu nit ñi àjjana waaw léeg-léeg nga digg ci ay wax yoo xam ne sa yaram day daw nu ko nit di waxee nu ko jullit di waxee waaw ñun waaw yéen da ngeen naan mënu leen ko mais ñun mën nañ ko waaw yéen yéen rek yéen yéen waaw xam nga lan la sëñ bi ah yéen seen bopp ngeen xam yéen da ngeen naan mënu leen ko mais ñun mën nañ ko kan moo mën a yóbbu nit àjjana lu dul nga jaamuloo ko yàlla saaba bi mu ñëwee ci yonent bi ne ko yonent bi ne ko waxal loo bëgg ma defal la yonent wax sahaaba na ko wax hadis baa ngi ci bulughul maram ngeen jógee ngeen dem seeti ko ci buntu julli waxal loo bëgg ma defal la yonent bi wax loolu ab nit waa ji ne ko asaluka murafaqatuka fil janna maa ngi lay ñaan ni ma ànd ak yow ci àdduna di la téyel say dàll yowmal qiyam ma ànd ak yow noonu biir aljanna loolu rek laa bëgg ah yoon dina ko mënuma loolu mënuma ko mënuma laa dugal aljanna waxal leneen yoon waa ji ne man waxuma leneen de man loolu laa bëgg yoon ñoo ko àjjana rek nga bëgg a dugg mu ne waaw mu ne ko asaluka a inni ala nafsika bi kasarati sujud kon nag na nga julli lu bare bari dégg nga ngay sujjoot lu bare bari comme àjjana nga bëgg del julli del sujjoot lu bari gis nga wax ko demal nga tëdd nelaw incha allah yowmal qiyaam dinaa yónni Aboubacar ak Umar ñu jël si la fa tabarakallahu na nga taxaw rek ci buntu aljanna côté droite bi incha allah dinañ la jël si. Sénégal moo garaaw Sénégal ngay dégg kuy digge aljanna comme koo xam ne caabi yi ci loxoom la léegi di ko digge comme caabi yi mi ngi ci loxoom ah allahu akbar ah waaw dañuy digge aljanna comme caabi yi mi ngi sa loxo waaw bu soobee yàlla ëllëg bu ñu dekkee déggoon naa benn waaye mu ne bu ñu tekkee yonent bi jiitu Aboubacar topp ci Omar topp ci Ousmane topp ci Ali topp ci mu ne ma topp ci. gars yi des kaay commencé yow inna lillahi wa inna ilayhi rajiun nga topp ci ana Bilal ana Hamza ana imam Malik ayna Abu Hanifa ana imam Ahmad ana Shafi'i ana Ibnu Taymiya la ilaha illa Allah dama topp ci gaa yi yuux loolu fan lañ ko bind yow nga topp ci fan lañ ko bind benn xadis la mu ngi ci alquran mu ngi ci Bukhari mu ngi ci Muslim mu ngi ci Abu Dawud mu ngi ci Tirmisi yi ma topp ci fan lañ ko bind ba ngay wax lu la neex yal nañu yàlla jubal yàlla mu ne wa qaala wax na allazina ñi nga xam ne ittabau ñoo toppoon léegi nag ñi doon toppaate ñooy wax waaw ñiy toppaate al toppe yi ci mbur mbuuj yi ñi nga xam ne moom amuñu benn xel dañoo naan seen yuur yi ñoom ñooy wax nag ña nga naan law anna lana karra cey ñun tey sunu munoon delluwaat àdduna lana tabarra'u minhum dinañ denc yéen ndeke yéen lii ngeen doon wax jox leen ma nangam nangam yenu leen ma fonk leen ma teg leen ma ci kaw ñu ñëw ba fii nga naan xamu ñooñu xamoo ma yow yow ak li ma la jox yépp nga xam ne dama doon bàyyi sama baay di la bayal bàyyi sama ndey bàyyi samay mbokk topp la daaw ma sol sax daal yenn saa yi daaw ma sangu peñe sax daaw ma peñewu ma topp la tey nga ñëw fi ne xamoo ma billaahi bu ñu delluwaatoon aduna tey allahu akbar gis ngeen xuloo bi fa natabarra'u minhum danañ deñ ci yéen kama tabarra'u minna comme nu ngeen deñee ci ñun tey lii maa ko wax wala wax yàlla la bu fekkee am na ci yéen ku yor kaamil traduit en français na ko liir man waxuma ko de yàlla moo ko wax yàlla mooy wax wax ji man waxuma ko bu kenn toog fi naan gis ngeen kii ñu- ñun ñii lay wax waxuma kenn yàlla moo ko wax bu fekkee da nga yaakaar ne maa ko wax soo diñ bee seen kër jëlal sa kaamil traduire en français suratu baqara liiral liir ko en français ci kaw ñu dégg ko 165 166 167 liiral aaya 167
Il est fumeur du nom. Ah, qui ont retour nous était possible. Alors nous désavouerons comme ils nous ont désavoué.
lan mooy la suiveur Nous les désavouerons comme ñi doon suivre toppaati al topp yi cumbur mbuuj yi cumbur mbuuj yi nga xam ne daawuñu jaamu yàlla daawuñu dem jàkka fajar daawuñu julli caaxaan rek di yuuxu ku woote ñu ñëw waaw ku woote ñu ñëw ndax dañoo bëgg soos soos rek soos soos moo leen tere jaamu yàlla soos ak cere fa natabarra'u minhum danañ denc ñoom kama tabarra'u minna comme ni ñu deñee ci ñun tey allahu akbar ñu toppe woon taxaw di wax ñu doon topp naan leen du ñun hatta shaytaan yowmal qiyam pujum la ko yàlla defal pujum minbar shaytaan yi yéeg ci kaw minbar bi ñi ko toppoon ñëpp ñëw taxaw naan ko yow yow la bil yow seytaane ne hee déglu leen gars yi ne teg ñëpp déglu ne science seytaane ne leen ayéen man maa leen woowoon est-ce que man maa leen ñëwoon ba seen kër ne la kaay topp ma man damaa woote rek ngeen ñëw tey bu ma kenn topp falaata lu mu nii lu mu an fa sëkk cholédéra xam ngeen cholédéra hmm? xam ngeen soo estat xam ngeen làmb ku fay dugg looy def da ngay fay jënd ticket 10 000 5 000 2500 jàkk xam ngeen ko ku fay dugg ndax looy def stade du ñu woote de te jàkk dañuy woote ne hayya ala salaa hayya ala al falah kenn du ñëw stade nag da ngay dégg nungur nungur nungur nungur nga ñëw ne bee ñaata ñu ne 10 000 nga ne am 10 000 am yenn saa yi sax nga joxe ñu ne bee ñaata ñu ne 5000 nga ne joxe 10 000 waa ji bëgg la jot nga ne ko noo garde la monnaie di wane ne yow da nga am xaalis quoi prends prends la monnaie quoi si inna lillahi ànd ak sa benn jigéen soirée ñëw jënd ticket jëndal ko ticket ñu bëgg la delloo nga ne noo garde ma gardel monnaie bi di wane ne yow te jàkk jaa ngi ne ñu lay woo wuyu woo fee kenn woowu la nga dem yàlla moo ñuy woon boppam tey nag ndeysaan yàlla mu ne kadalika nii yurihim llahu la leen yàlla di wane amalahum seen jëf ñoom ñëpp xasaraatin ñuy way perte ñuy way rëccu kenn ku nekk ci ñoom màtt baaraamam di rëccu ginnaaw ba leen yàlla wane seen jëf mu nekk jëf ju bon kenn ci ñoom jaamul woon yàlla ñee dañ doon naxe ñii ñu leen di nax naxaate weesuwul ngay jël nit ñi jaamoo leen yàlla di leen caaxaanloo waaw naan leen xol rek a takku yàlla xol lay fay mën ngaa bañ a julli sa xol na set rek fan la yàlla wax xol lay fay fan fan fan la yàlla wax ne xol lay fay xol rek a takku nga toog bañ a julli ñu ne pourtant diw du julli mais xol bi dafa set kooku kay xol bi dafa mel ni godrom borom xol bu set day julli maa fil qalbi yazharu fil wajhi ku sa xol nangu rek sa cër nangu waaw instant nga dégg ñu ne jëf du dugal nit aljanna kenn ci yéen du jëf jëf ah lan mooy jëf nit dina julli ba pare dee dem safara instant gis nit ñi décourage da nga gis nit ku julli ba dee dem safara xanaa dafa fekk julli gi mu yàq ko dafa fekk julli gi julleewul ni ñu santaane rek bu ko jullee ni ko yàlla santaane du dem safara abadan waaye bu ko defee ni ñu santaanewul loolu moo koy yóbbu safara parce que daf koo yàq ni ñu bàyyi ni ñu yombalee nit ñi diine bi nañu wax nit ñi dëgg nañu wax nit ñi nañ jaamu yàlla nañu wax nit ñi nañ roy yonent nit ñi bu ñu xamul nañ laajte jàng ngeen laxdari laxdari moo gën a tuuti ci Sénégal lan lay jàngale boo xamul mu ne wa yasal al ulama mu ne mooy roy mu ne wa yaqtadi bil muttabiina li sunnati nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne booy roy booy laaj laajal boroom xam-xam booy roy royal ku topp sunna loolu la wax mais yow ngay jaamu doo jaamu yàlla booy laaj doo laaj boroom xam-xam l'islam amalu la benn njëriñ da ngay gis tey ci Sénégal fu ñu woote ci biir dëkk bi ñëpp daw julli ñëpp daw dem wuy ji te duñ julli da ngay laaj ana diw ñu ne dem na te du du julli mu soo ko gis ci jàkk ci ñëwaat nag ñu naan ko siyaare nañ la mu naan ñaanal naa ñëpp ñaanal naa ñëpp foo leen ñaanal loo leen ñaanal waaw foo demoon maa ngi lay siyaare ah yow jar ngaa siyaare ah falaa jullee àjjuma nan yàlla jubal nan yàlla won dëgg wërsëgal ñu topp ñu kuy jaamu jaamul yàlla kuy jaamu jaamul yàlla kuy jaamu jaamul yàlla mbokk yi mbokk yi kuy jaamu jaamul yàlla billaahi wallaahi ku jaamul yàlla bis boo duggee bàmmeel di nga rëccu ku jaamul yàlla bis buñ la suulee ba nit ñi wane ginnaaw di nga récc loo doon duñooy àdduna buñ nax suñu bopp nañ leen xam kan mooy yonent yàlla muhammad yonent yàlla muhammad alayhi salatu salaam moom dong la ñuy laaj biir bàmmeel mooy kan moom kan moom kenn la ñuy laaj duñ laaj keneen moom dong la ñuy wax maza kunt taqulu ala hadha al abdu muhammada kan mooy kii waaw muhammad déggoon nga ko nga ne waaw ñu ne loo doon wax ci moom ci àdduna kenn du la laaj sa pap kenn du la laaj sa yaay kenn du la laaj ci ban askan nga bokk kenn du la laaj ban famille kenn du la laaj foo juddoo muhammad lañ lay laaj muhammad jar naa xam de wala bu ñuy nodd léegi léegi ashhadu anna muhammad bu ñuy lixaam ashhadu anna bi nga juddoo ilimaan di leer tudd lan la waxoon ci nopp yi ashhadu anna nga dee xoolal bi nga juddoo liir bi xam ngeen ñun kañ lañ commencé dégg muhammad bi ñu juddoo bi nga juddoo ba léegi ñu naan la muhammad xamoo muhammad la ilaha illallah bi nga juddoo ilimaan ñëw mu téye ko allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammad nopp ndeyjoor nopp càmmoñ julli jot ñu woola ashhadu anna muhammad liqaam jot ñu ne ashhadu anna muhammad ci biir julli gi sax nga ni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad nga dee dugg bàmmeel ñu ne la kan mooy muhammad nga naan ah ah laa adri laa adri malaaka yi ne la laa talayta wala darayta xamoo yàlla boo xamati xamoo mu ne ah mu ne ñu ne ko yàlla boo xamati yonent bi nee na fa yudrabu bayna uznayhi bi mitraqatin min hadid dañ la dóor dóor boo xam ne laa ilaha illa di nga yuuxu yuuxu boo xam ne ñépp a koy dégg ba mu des nit ak jinne hmm. jar na ko de yow bi nga nekkee liir ba léegi ñuy wax Muhammad nga dund ci àdduna ba dee xamoo ko Muhammad te nga xam waykat yépp xam nga leen waykat yi waykat yi Sénégal yépp xam ngeen leen xam ngeen mbër yi suñu ne woon ñaata mbër ngeen am ngeen wax diw diw diw buñ ne équipe nationale ngeen ne diw diw diw moo ne ci camp yi tegal ma fële diw numéro 2 tegal ma fële diw numéro 3 tegal ma 4 beeg 5 bi diw la tegal ma ci milieu bi 6 bi ak kii bi diw la ailier bi kii ailier gauche ailier droit diw ak diw digg bi diw ak diw ñu ne la kan mooy Mouhamad nga eh kooku wax dëgg yàlla nag jàngu ma nag waaw man nag ma nekkee xale ah yow bu daara rek ma jàng ba xulange berabil falaqi rek ñu dugal ma école xulange berabil falaqi laa yam min sari ma galaga gis ngeen de waaw ndeysaan foofu la sénégalais yi di yem boo jàngee ba isa jaar nasrullahi rek ñu ne ñëwal nga dugg école ñëwal ñëwal boo fi nekkee daa daara da ngay tardé yooyu dem jàng alxuraan da ngay tardé ñëwal waaw waa ji dem jàng ba yéey ay kayit nag ñëw waaw léegi nag du xam nu ñuy jaamoo yàlla nag nekk ci jàkka yi di yàq rek mooy dëj bi ma doon xuloo démb ñu sangee néew bi génne ko bilaal bi yaa ngi foon yaa ngi foon de ma ni jël leen tànk yi ngeen jiital ko nii ñu dem bilaal ma ne ñun de xamuñu lii ko leen parce que jàngu leen moo tax Sénégal duñ jàng de Sénégal ñaari mbir da ngeen koy bàyyi xel Sénégal ñëpp docteur lañ ñëpp ay borom xam-xam lañ boo feebaree ñëpp ñëw naanal li ki ñëw ne la naanal kel dem ñëw keneen ne la naanal tooy dem keneen ñëw ne la jàpp jàmbal bisaab kee ñëw ne la naanal daqaar kee ñëw ne la naanal limam kee ñëw ne la kë la da ngay naan ci suba gi ba ba ngay dee ñëpp docteur lañ ku ñëw rek indi garabam diine bi tamit ñëpp ku ñëw am nga xam-xam. déedéet nii la déedéet déedéet nee la moo tax ku jàngul alku nga ku jàngul alku nga billaahi wallaahi dañ lay réeral ba nga dem safara yowmal qiyaamati xool leen tey li xew Sénégal ah kaay ma woon la yàlla kaay ma woon la yàlla nga dem ñu ne dañ lay woon yàlla yonent bi est-ce que wonoon na Aboubacar yàlla bu fekkoon ne yàlla dañ koy wone kon yonent bi dina ko woon Aboubacar kon dina ko woon Umar kon dina ko woon Ousmane kon dina ko woon Bilal dina ko woon Hamza dina ko woon Fatima doomam dina ko woon Ousseynou ak Assane ay sëtam kon mu wan leen ne kaay moo leen sunu borom ab sénégalais sénégalais laa wax de waxuma sax bokk ci jamono ñoom taabiin sénégalais ne day gis yàlla koo xam ne bis bu xëyee ay bëtam mi ngi tegu ci mini mi ngi tegu ci xàppati mi ngi tegu ci dangal mi ngi tegu ci ay nees tegu ci xeesal mu ne day gis yàlla boo sax waa joo xam ne moom ndeysaan du gis lu araam déedéet lu xaraam rek lay xool mu ne day gis yàlla ndeysaan kuy xool lu xaraam donc du gis yàlla mukk yàlla bu ñu koy gis yowmal qiyaam la wax yowmal qiyaam yonente bi ma saaba yi mu ne innakum ñu ne mu ne sa taraw na rabbakum kama taraw na haazal qamar li- yéen ñu ne ah mu ne di ngeen gis seen borom comme ni ngeen gisee weer yi wala yonente bi loolu la wax saxaaba yi ñun nag benn sénégalais ñëw fii ne yàllaa ngi nii yàlla waaw maa ngi yàlla kooku sax ñooñu ma ne kaay ma ne leen man maa ngi yàlla mus naa dem Casamance ñu romb benn montagne benn àll ci biiri ñax montagne bu rëy ma ñu gis kenn toog fële ci montagne bee kenn toog fële kenn toog fële ñaaj bu tàng ay deux heures ku nekk yër kurus ñu ne waaw ñu ne ñuy def fii ñu ne ñi dañuy gis yàlla yàlla lañ bëgg a gis toog ci naaj bu tàng jër ñoom ñëpp ñu ngi wirtu ba ñàq ne dañuy gis yàlla allahu akbar réer baaxul réer réer musiba la yal nañ ci yàlla musal borom bi nee na subhanahu wa taala yàlla nee na wan naa leen seen jëf ñoom ñëpp ñuy way perte ñoom ñëpp perte nañ yàlla mu ne wa maahum déet ñoom bi xaari yi na ñuy génn mina naari ci safara yàlla jël ki doon toppaate ak ki ñu doon topp ñoom ñaar ñëpp daal leen di sànni biir safara ñoom ñaar ñëpp kenn du génn wa maahum déet ñoom bi xaari yi na ñuy génn mina naari ci biir safara mbokk yi kullu musibatin duna naari aafiya kullu musibatin duna naari aafiya wa kullu nicmatin duna aljanna xaqir d'accord ngeen ci loolu bépp musiba bu dal nit bañ a lekk bañ a naan xiif ñàkk kër ñàkk dépasse ñàkk jabar ñàkk am ay doom wala kaana loolu lépp gis ngeen li muy garaaw garaaw soo duggul safara rek loolu dara nekku ci loolu lépp bu la dalee te duggoo safara d- dara dalu la yow waaye kullu kullu ni'matin dunal janna xaqiir dëkkal ci ay étage bul lekk ceeb bul dox ak say tànk bul feebar ah amal ñu lay liggéeyal bul sax di wax da nga naan nii rek bopp bi rek mooy wax bopp bi nit ñi di daw di def nga dee yàlla dugal la safara di nga xam ne musoo noos gis ngeen ñaar yooyu bu réyee ci ñun bépp xéewal bu dul aljanna lu xeeblu la ci kanamu yàlla bépp musiba bu dul dugg safara du dara ba moo tax saxaaba yi ñett yi ñaar yi moo nekkoon seen kanam xéewal lu muy rëy rëy rëy ñu ne aljanna moo ko neex moo gën a neex saxaaba yi da doon tëdd ba mindi jot mu yeewu daal di raay lal bi lal lal lal lal nooy nga de waaye nag lali aljanna yi ñoo la gën a nooy dégg nga de dégg nga yow lal mu bàyyi lal bi jàpp naa fi la jëm fajar am ñoo xam ne ñu naan tëdd ba fajar guddi jot ñu ne seen soxna soxna yi nekk aljanna yi ñoo la dàq wax nañ dëgg wala waxuñ dëgg moo tax kullu ni'matin duna aljanna xaqiir wa kullu musiba duna naar aafiya loolu moo doon sunu darsu tey yal na yàlla def ci ñun dégg ak topp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh